universelle partout dans le monde Sénégal ci gën a tuuti am na loi universelle produit bu ñu jaay rek su néewee ci marché bi rek njëg day yéeg. Mm-hmm. mais fekkee ne na xas njëg day wàññeeku. te mën naa ne jox avec certitude ne balaa vendredi prix prix dañuy delluwaat à la normale que ñëw na port mais dañu dédouané wul. ndax seet gi tax ba ñu dédouané wul mais commencé nañu dédouané tey ak suba donc balaa vendredi prix day delluwaat fa mu nekkoon. naka la def ba loolu ñu bañ di ci nekk. waaw loolu la la wax ne am yéeg yi xam nga aussi disponibilité <coughs> ressource bi tamit dafay poser problème si bi si biir réew bi ndax li nga wax nii importation bi. très bien waaw li fi li fi nekk. waaw li fi nekk am na production am na production nationale. wala commerçant yi duñ ko jënd. Euh, bul wax sax commerçant duñ ko jënd mais bu ko consommateur soxlaa rek commerçant dinañ ko jënd c'est-à-dire am na politique. ñun souvent bu bu dajeendoo ak produit bu jóge bitim réew jigéen ñi dañ préféré bu jóge bitim réew. mais am na politique l'État ay am na yoo xam ne ñëpp koy jënd non je veux dire mais loolu pour am na lu mu ci def parce na prix yu mu homologué loo xam ne du seetaan mu yokk n'importe que d' abord damay saluer le travail de des associations de consommateurs mm-hmm. mais ñoom ma mar Ndaw expert la ma soxna kan avocat la mais ñoom xam nañ loi du marché ba euh, produit moom bu baree rek njëg de daanu mais bu fekkee produit produit néew na il faut njëg yee loolu moom c'est c'est reconnu de tous et puis euh, c'est dans tous les marchés marché boo gis euh, marché bu miniature la par rapport ak Wall Street wala par rapport ak bourse yi toujours da ngay gis ñu ay moment de frottement yoo xam ne ni à la hausse à la baisse am nañu ci profito de la même manière marché sénégalais mu nekk denrées yi ñuy de première nécessité du commerçant yi ñooy tayef yokk amuñu droit te aussi marché sénégalais pourtant am na stabilisation depuis plusieurs années. lépp daal def bu njëkk da ngeen ne commerçant yi amuñu si droit mais tamit sànq dafa am lu wax lu am solo. Ah. mooy ñàkk régulation. waaw régulation loolu loolu loolu parti état nekk xam nga loolu xam nga loolu parti xam nga loolu parti état bi la xam nga loolu parti état bi la mais man damay wax parti commerçant yi commerçant yi benn commerçant amul intérêt jënd marchandise yokk njëg di xool au contraire da ko war a jaay muy rulle xaalis bu bu dikkee mu defaat ci leneen c'est-à-dire ñu am maanaam sax boo nekk ci benn marché en général prix yi ñooy yamandoo waaye boo yokkee mais ñi gën a yomb rek ñooy ñooy njëkk a jeexal donc maintenant nag régulation war na am ci lu ne ni ñu dem ba xalaat ARM mu yem ci di réguler lu dul ay produit horticoles war nañu yokk compétence muy régaler muy réguler leneen lu loolu parce que sukkar si amoon na fi coow temps yële mm-hmm. ñi ngi produire sucre mais sucre bi ñu produire mënu doy consommation locale te léegi dañuy obligé kon importer le gap xam nga ni woon na fi coow temps yële beneen coow mooy tàmbaliwaat Papa Djibril Fall maa ngi lay nuyu. <laughs> maa ngi lay fay bu baax aram di jégalu bu baax retard bi di nuyu gan gi di nuyu ñi ñuy seetaan ci biir réew mi ak si bitim réew mi. ñu continué ba pare mu bi. ah Fall bi waaw waaw tuuti <laughs> ñu taxaw fenn fu am solo. Mm-hmm. parce que bu ñu nee dëwlin. Mm-hmm. dañuy xalaat lu mel ni Sonacos nekk kër ci réew mi. Mm-hmm. am yeneen tamit huileries yu fi nekk yoo xamante ne ñu ngi liggéey euh, ci wàllu dëwlin. ñu toll foo xamante ne nii ñuy importer ba muy diis ba ñuy tàmbali di wax naan hausse am na. Euh, un mille. yaar xaw un million de tonnes huit cent mille yi yi yi yi ministre bi wax. gerte boobu yëpp naka lañ ko mënee am ci biir réew mi war a mën a am quantité peut-être dëwlin à suffisance te loolu mateew d'abord euh, un million huit cent mille tonnes chiffre la goo xam ne nii du ma ko rejeter du ma ko accepter su ko ANSD waxoon ci laay gën a mën a gëm parce que ministre aussi ministre yëpp ministre fonction politique la hmm. dañuy def loo xam ne nii dañuy bëgg ki leen fal di wane ne ngi liggéey donc man la joxe ay prix yoo xam ne nii man amu fu ma wér fu ma sukkandiku ba man ko gëm wala man ko weddi donc dama dégg rek ni dégg loolu am na mais loolu ce n'est pas un problème nañ nañ nañu am. 3 jënd est-ce que loolu am na. marché bi di ngeen ci gis production locale bi. xam nga xam nga boo nee ñuy jënd man damay diriger kuréel goo xam ne nii dafa bari ay membre ñii dañuy nekk jënd gerte jaay gerte mais am na ñoo xam ne nii xamuñu dara nekk ci gerte ñi ngi def cosmétique am ñeneen ñuy def friperie donc ñun danañu réguler. waxtaan ak suñu membre yi nekk à l'intérieur du pays mais en général ñi jënd di jaayaat la mais bokkul ak Sonacos nga xam ne structure bu mag la dafa jënd lu bëri nekk na Ziguinchor foog naa nekk na Louga war di structurer di defar diwlin mais Sonacos li muy produire xaaju la doy li Sénégal yi soxla donc à la couleur importation day am mais waruñu seetaan nag euh, ñu ñu ñu ñu ñoral lu toll noonu ci gerte seetaan. ñu jël matière première génne ko frontière dem transformé waat ko ñëw indi ko dañu duñu ko jaay. alors responsabilité la ci secteur privé bi ngeen nekk am. waaw gunge ci wàllu stratégie pour ñu mën a industrialiser. xam nga secteur privé euh, moom day am initiative mais état mooy mooy yor politique xam nga politique moom ki ñu fal mu jiite mi moom mooy ne man lii fii laa bëgg a jëmee Sénégal am na ay failles. mais dafa war a am option ferme ah, yaa ngi fàttali ko NPI nouvelle politique industrielle yàggoon na. Mhm. mais Macky bi mu ñëwee PSE. la teg. yoonu yokkute la wax teg PSE ba léegi ñu ngi nekk PAP 2A sukkandiku ci ci ginnaaw bi mbas mi amee mais ñun état moo war a nekk suñu premier partenaire mais ñun dañuy am initiative am esprit d'entreprise. war a am ay partenaires yu nekk ci réew wala bitim réew ay banques ñu accompagner mais doo xëy sóobu ci benn benn benn mbir moo xam maîtriser wu facteur yëpp. alors day am étude de faisabilité étude de projet nga am nga am accompagnement de l'État comme ni ko yeneen réew di attaqué di di accompagner secteur privé moom mënul la cundum rek ne mooy yore économie économie secteur privé da koy bokk ak état parce que état mooy définir secteur privé mënut a définir politique léegi fan ngeen toll ci collaboration boobu ak état parce que bi ñuy def euh, PAP bi mhm. dañu gisoon secteur privé local bi mhm. jooytu lool seen participation mm-hmm. seen ndax mettre nañ leen ak contribution mm-hmm. ndax ci PAP bi ñu koy ajusté di ko pour accélérer ko mm-hmm. ndax dékku nañ ci seen xalaat ngir yu mel nii coow liy jóg nii bañ a am ndax comme nga wax nga ne bii am na beneen dina am donc est-ce que loolu boole nañ leen ci ngir yu mel nii ñu mën a am ay kii waaw bu état bi defee li ko war mën na am du amaat wala buy amee dina wute ne nu mu amee ndax boole nañ ci souvent am na discussion wala am échange concertation yoo xam ne ci bokk bi ci mujj mooy bi ñuy Euh, le programme de relance le PREN programme de relance de l'économie nationale mais kooku muy sukkandiku ci PAP 2A wax jën fa wax wax nañ fi wane ne pare nañ ko jàppale état bi ci économie relancé wu ndax ravage yu mbas mi booba deuxième fa booba deuxième kii bi amaguloon deuxième pan deuxième. fu ñu koy wax sax deuxième vague bi amaguloon mais def nañ sax dossier jox ko président de la République donc ñun lu ci ëpp ci ñun ay distributeurs lañ ay commerçants lañ am na tuuti industriel mais am na lu ñu ragal. ñemewuñu parce que unité industrielle yi fi nekk am nañ ay difficulté donc soo ñëwee bëgg cee sóobu daanga daanaka loolu wax ñuy wax sauver l'inconnu am nañ ay projet industriel surtout transformation de produits ko dont diwlin mais il faut l'accompagnement de l'État il faut l'accompagnement des mais aussi sûr parce que les machines doivent être importées machines yooyu nekkul ci réew est-ce secteur privé tamit dañ ko yar ci importation hmm. ba moom looloo koy gën a yomb ci moom hmm. pour mu gën a maîtriser les risques entre guillemets hmm, par rapport ak mu taxawal unité industrielle non ñun benn part lañ ci secteur privé secteur privé dafa yaatu xam nga bu ma ne dinaa yeesal commerçant distributeur ak prestataire de service ñoo ci nekk am na industriel mais yu néew la. Mhm. mais am na structure quand même yu am na industriel comme keneen ko génne kon ci oh, loolu ah, moo tax ma ne na 30 ans mais loolu tax ma ne tàmbali nañ non mais tàmbali nañ mais dafa am lu koy jiitu xam nga industrie dafa laaj ay investissement yu énorme laaj ay investissement à long terme bokkul ak jënd jaayaat am sa bénéfice am na différence mais loolu politique état bi moo ko war a accompagner d'ailleurs du waru ko sax accompagner mais war a tracer voie bi ñu jaar ci. man de tàmbali nañ. tàmbali tàmbali nañ mais bi mu ne day indi fast track. waaw fast ah, track ci gouvernement bu njëkk bi nga xam taxawal na ko bi mu dindee poste premier ministre ne dafa bëgg mbir yi gën a gaaw. Mm-hmm. réew yi fast track am yëpp d'habitude dafay viser le secteur industriel. Mm-hmm. muy package boo xam dina permettre nga mën a installer wu mën a doxal rapidement. Mm-hmm. ndax ci fast track boobu. Mhm. yéen gis ngeen ci seen bopp dans ci ci wàllu surtout ci volet industriel. gis guñ ci suñ bopp parce que moment bi may wax nii am na plus de quinze projets agro industriels yi nekk sama bureau yoo xam ne ni ay membres UNACOIS Yeessal la ñoo ko def pare nañ def agro bëgg investir dans l' agro industrie et dans l' mais ça demande un accompagnement de l' et des banques. lan concrètement lan moo leen di bloquer concrètement. non je sa banque c'est-à-dire non pour financer un projet non. un projet moi j'ai un projet qui doit démarrer avec 350 millions fan laay jëlee xaalis boobu bu ma demee ci banque bi apport personne bi may laaj damay wut samay terrain def ko bàyyi pour euh, banque bi man ma jàppale état bi war na am ay fonds yu war accompagner fonds yi fonds six ak yooyu nag c'est plutôt destiné aux jeunes c'est plutôt destiné au femmes parce que bu ñu nee DER am na xaalis bu muy bu muy bu muy bu muy les adultes day financé les jeunes et femmes bu dee FONGIP garantie lay def mais mënul financer FONGIP day garanti financement beneen. BND mooy financer fonds 6 non fonds 6 en général da ngay am unité industrielle boo ñëw wane ñoom ñu jënd ci action am na ci yoo xam yëg nag man bi naa leen leen au nom d'une structure mais amaguma réponse même ngeen ay partenaire yoo xamante ne ci la. def nañ fi non seulement ñun def nañ fi Moscou def fa 12 jours Russie ñëw def fi une semaine ak ñu ñun ñu demaat Italie Italie venant de Milan qui est la capitale de ñëw fi. non seulement pare nañ pour accompagner sur le plan industriel mais ils nous ont xale yii dee ci géej gi Océan Atlantique wala Méditerranée ñun italiens ñuy dem leen secourir leen faj leen sol solal di leen dundal xaalis boobu ñuy def mën nañ ko multiplier par 10 ñëw Sénégal ubbi fi ay unité industrielle yoo xam ne dañu tey xale yi ngeen ni présenté ci état ba mu bañ ci war a mën a jàpp alors que ñeneen gis loo xamante ne am na solo ba ciy def seen xaalis lan moo sooxee ba ba loolu noonu état mënu ci def loxo ah, état bi gën na jox xalaatam gën a déglu secteur privé étranger que secteur privé Sénégal lu waral loolu. non kooku peut-être. est-ce que laaj beneen jafe ci biir secteur privé bi ñu am. am na am na jafe-jafe. le secteur privé sénégalais et un monstre à plusieurs têtes. maanaam. maanaam njuuma la joo ne fukki bopp ak ñaar la maanaam kuréel gii gii gii gii. kon ngay yéen lii moo tax état du jëflante ak yéen ndax njuuma ngeen. man na ci mën na nekk xam nga mën naa ko tudd. mais mais dama ci dama ci assumer sama responsabilité nekk ay njuuma. non secteur privé dafa bari ay kër ku nekk yor baat te waroon a unir xam nga France li muy réeré MEDEF fa fa nekk. Mm-hmm. Tunisie gi li muy réeré UTICA am fa nekk. am interlocuteur direct mais Sénégal gi bi Lamine ñaari dund. nekkoon président chambre de commerce créé woon na lu ñu wax CPDS coordination patronale du Sénégal mais booba euh, association patronale yëpp dañu am benn kàddu mais léegi amul donc man li ma wax ni dama ko assumer parce que c'est un constat ci ñun. est-ce que mais mais nag du loolu rek loolu re loolu nag du raison tax état. waaw kay du raison mais tey est-ce que pare ngeen tey. Ah. pour euh, pour pour ànd waxandoo jël nga xamante ni di ngeen ànd jiital kenn. nga xamante ni kooku mooy nekk interlocuteur direct ak état pour mën a jël en charge li nga xamante ni moom mooy préoccupation secteur privé bi. sama kuréel laa mën a waxal man pare naa convaincre suñuy membre pour loolu am mais ñi am na ñu ko mënul wax nii mu ko waxee maanaam pare naa convaincre samay membre waxtaan ak sama président. pour secteur privé nekk am benn baat. mais ñi mënu wax loolu loolu mooy. ah mais ah, ana bokk leen même intérêt bokk leen li ngeen moom ngeen soxla. mënu maa wax sama tur seen mënuma wax seen tur si naa ko ayesal moom sañ na wax seen parce que dañ ma def chargé de communication li ma a wax mooy déjà maa ngi la wax ne 15 projets balaa may dem nii balaa mat une semaine na nekk 20 projets disponibles qui ne demandent que le financement pour relancer l'économie et relancer l'industrie man mii man mii sama projet mi ngi ci biir. Hmm. voilà njaay mi léegi euh, numérique daf si am solo. Euh, ku ci toog sa kër sax bu la neexee euh, nga mën a exposer say produits teg ci plateforme yi nit ñi am facilité yenn saa mën a utiliser di jënd tam mu yomb est-ce que tey yéen UNACOIS euh, yéen a ngi adapté wu ci li nga xamante ne mooy context bi léegi. l'économie mondiale s'est digitalisée. Hmm. incontournable ngi ci mais pour ne pas faire la publicité wala bu ngeen ma léegi na ma service commercial envoyé. fa léegi secteur bi wax nga léegi ne yéen ah. ngi jëlaale en charge les service mais gis nañ ne tamit. jamono yi surtout ñu toll nii gis nañ ne ñu ci bari ci secteur boobu dañuy yuuxu lu bari surtout initiative locale yi am dans ce sens la rawatina ci wàllu transfert d'argent yeeg yooyu yooyu est-ce que yéen a ngi ci solo robbu avocat di yuuxul noonu au niveau de l'État pour mu gën a regardant par rapport à ça. c'est-à-dire ñun ñooy première organisation fii ci Sénégal bu am bu nekk commerçant bu lancé plateforme numérique. Mm-hmm. Yeesal Njaay. Mm-hmm. daa nga dégg tur bi. Mm-hmm. ñun ñoo ko njëkk a lancé. danañ ko relancer waat bala yàgg pour mu dem. te loolu dañu xam ni euh, numérique tey c'est incontournable partout dans le monde dafa amoon solo mbas mi ñëw mu yokkaat ko solo. parce que mën ngaa jënd jaay te doo laal produit bi ku koy laal bala mu ko laal sax fekk na fay na ba egg loolu boo ko a fay. loolu ñu ngi ci maintenant ban façon yuuxu lañ man man damay damay bëgg a yem man samay limite mooy su ma yuuxoo wax ca ko samay membre laay mën a waxal parce que ñoo ma mandaté mais mënu ma waxal keneen léegi nag état xam na ñu li ñu nar il y moins de 15 jours. madame la ministre du commerce de la Russie pendant deux heures temps on a échangé sur beaucoup de problèmes ba ñu dem jox nañ ko document boo xam ne ni bokk na ci suñuy suñu bilan. lu ci lu loo xam ni état war na ci war a jàpp dans l'urgence mm-hmm. modernisation des marchés y a eu combien depuis vingt ans ministre bi keroog bi mu waxee ministre de l'intérieur moom sax ku bees la mais ñu ko fi jiitu dénombré nañ il y a moi plus de plus à l'intérieur du pays amul benn département marché département wala marché région bu la lakkul Sandaga ci gën a grave parce que lakk ba mu lakk non seulement yëkkati liggéey bi tàmbaleegul. Mm. donc wax nañ ko modernisation des marché te ñun ñu njëkk a produire assurance incendie signé benn compagnie boo xam ne nii ne présent na ci 17 pays africains donc bu am doole la pour incendie su amatee fekk ñu def inventaire sa mar sa marchandise. bu lakk amee bu UC ñooy def constat bi un nga wax noonu est que tamit foofu. amuñu fa beneen jafe-jafe xam nga tamit euh, euh, adduna bi ci ni muy tijjeeku ak ni muy doxee de plus en plus dañuy waxtaan ci partenariat public privé est-ce que tey jii ci wàllu yeesal marché yi mm-hmm. yéen ñi nga xamante ni yéenay jëfandikoo marché bi nekk acteurs yi koy soxla au quotidien mm-hmm. ndax mënuñu leen woon a mettre à contribution pour ngeen bokk ci ñi koy tabax même dans la gestion ak exploitation bi ñun ñoo njëkk a proposer privatisation la gestion des marchés parce que mm-hmm. marché tey bu lakk amee boo ñëwee ni doo xam commerçant mairie Sénélec gardien ya état protection civile ku ne mais bu ñu ko privatiser gestion bi dina am benn responsable. Mhm. bis bu lakk amee ñu joxoñ ko. ñu dem nañu Russie visité nañ fa benn supermarché boo xam ne nii c'est huit fois la le CICES. Hmm. en hauteur huit fois te benn jigéen moo koy gérer ci bureau ak ay écran mhm. mooy gérer yëpp nga xam ne saxar bu amee fenn sax ci saa si ndox mi koy. ndox mi koy fay automatiquement lay jóge à côté lu mel noonu mën nañu am ay partenaires yu liggéey ak ñun fii mais mais ma ñëw partenariat public privé moom la loi PPP loi la bu nekk assemblée kenn wote ko léegi léegi loolu aussi pour mu mën a am ah. dafa am beneen jafe-jafe bu ñu am ci suñu secteur privé surtout ci domaine bi ngeen nekk mooy le défi de l'informel hmm. xam nga marché tamit boo ci nekkee hmm. d'accord na hmm. mais bu dee ki nga xamante ni moo moo moo yilif marché bi xamul ku fi nekk ku fi nekkul donte ma ngay jël la mu yor ma ngay comp ca la muy la muy jaay mais informel boobu tamit est-ce que nekkul benn défi boo xamante ni yéen tam dafa am taxawaay bu ngeen ci war PSE euh, président daf ne premier pilier PSE mooy transformation structurelle structurelle de l'économie ñun on est preneur ñun actuellement ni kenn du am carte membre ci ñun te un indiwuloo registre de commerce indiwuloo NINEA sa photocopie carte d'identité benn somme forfaitaire ak ñu xam ban activité nga def ak foo koy defee xam nga kon bala bala ngay nekk membre Union Kayor Sol moment bii man maay defar carte président moo koy signé te du ma dossier bu ñëwul te jaarul foofu kon ñu ngi ñu ngi ngeen actuellement. non sur le Sénégal. waaw on fait plus de 100000 membres à travers les 45 départements du Sénégal on fait plus de. te loolu ngeen amal seen membres yi. ban ban njëriñ première ñaari njëriñ. Mhm. leen défendre ku ci am problème boo ñëwee yëg ko ñu yëg ñu yëg ko danañ ci def li ñu war mooy première première mission bi mhm. deuxième mission mooy fu ñu gisee opportunité. ci bitim réew wala réew mi dañ ko jël indi ko teg ko sa kanam nga mën ko jariñoo mhm. membre bu ci am difficulté douane impôt euh, port souvent même justice parce que léeg-léeg nga juum léeg-léeg ñu daal sa kaw tout ça dañu lay taxaw. la seetaan membre yi dañuy cotiser. waaw am na lu ñuy cotiser. ñaata. non loolu du ma ko wax. kooku sama diggante ñaata ngeen am ci xaalis bi. <laughs> sama diggante ak ñoom la du ko wax. <laughs> nee na sànq som <laughs> ñu ñu taxaw si leneen. tey gis nañ ne euh, début d'année bi lañ nekk. Uh-huh. lu mel ni ZLECAf. entrée en vigueur am hmm. premier ah, janvier ah, yi nga xamante hmm. ni moom la ñu mën lañ génn euh, ban ban ban impact la war a mën a am tey euh, euh, ci ci ci kon d'abord Seleka xam nga xam nga Seleka puis chef d'État yi africain yi ñoo dajee UA UA tëral ko constat bi ñu def mooy l'Afrique commerce pas tellement avec l'Afrique hmm. donc les pays africains commercent plus avec les Amériques loolu espace Schengen asiatique yi plus suñu biir alors ñu ubbi ñu ne léegi dañuy créer marché boobu seuil bi ñu war a am ci pays yu ko ratifié nañ parce que egg na 34 sur 54 pays mais bu dul woon mbas mi juillet passé la waroon démarrer mm. mbas mi tax ñu indi ko premier euh, janvier man posé naa débat bi ci kanam madame le ministre du commerce bi ñu mujjee daje te tey sax moom mooy présider conseil des ministres de de de la Sénégal. Oui. mais il y a des c'est-à-dire le Sénégal n'est pas encore prêt. maanaam maanaam euh, xam nga. lu ñu manqué. xam lu ñu manqué. produit sénégalais état bi da ko war a jàppale ngir mu mën a génn Sénégal ba dugg ci yeneen réew. ñu delluwaat si industrie gis nga suñ ko deful waaw ah, dinañu ci industrie xoolal suñ ko deful. produit sud africain produit nigérien produit marocain fekk si produit sénégalais produit Sénégal dana nekk à la défensive alors que dafa war a attaquer pour mën a génn frontière dem ci yeneen réew ñi ngi exporté de ñi ngi exporté mais lu néew. lu ñu exporté fi mu ne. pour certains produits halieutiques euh, phosphate. mbaa du matière première yi ngay wax. non non loolu loolu loolu produit fini la. ak mango waaw ak mango. danañ exporter mango danañ exporter cajou. danañ exporter. bisaab euh, bisaab danañ aussi ariko mais mango surtout mango moom dafa progrès dafa progressé waaye moment boobu nag bi ma toogee. mais produit yooyu nga baal ma. Hmm. produit yooyu ñuy exporter. Hmm. ndax dafa dafa bokk ci euh, ñi ñooñu nga xamante ni dañoo ñëw fii jël suñu suuf si. Mhm. bay ko fi di ko jëlaat di ko yóbbu. non non noonu non non non loolu moom sénégalais non loolu moom bu ñu ñëw bay mooy comme par exemple lu mel ne Sénégindia mais dañu bay pomme de terre mais dañu koy jaay ci réew mi bu rarement ñu exporté parce que lu ñuy jaay euh, day jar ci réew mi ndax dafa am moment boo xam ne nii production nationale bi su paree dañu arrêté importation yi dañ ko arrêté may li mu écoulé maanaam euh, ren ak daaw ak daaw jéeg li commencé. koor koor yi ba ci tabaski ba tam xarit consommé wuñu oignon ak pomme de terre bu jógee bitim réew production locale rek lañ doon lañ doon consommé mm-hmm. donc loolu ay produits yoo xam ne ay sénégalais ñoo koy bay spécialisé ah yoo xam ne nii ñi yor seen tool ba pare di ko exporté am am am ouverture sur le marché international am ay clients mm-hmm. te loolu day indi devise loolu moom am na loolu bokkul ak ku ñëw industrie euh, ku jógee fële ñëw am ay toolam bay pare transformé kii bi te loolu même bu ko exporté dina am euh, devise parce que ay sénégalais ñoo fi liggéey donc tey le défi c' est l' industrialisation le défi c' est la conservation le défi c' est le consommer local c' est le je je peux même vous donner en exclusivité que le mois de février ce sera un mois dédié ci wala manaam weeru février bi ñu jëm donc dans un mois mhm. weeru février yëpp ce sera au consommer xam nga conseil local dafa war a nekk 12 mois sur 12 mois. Mm-hmm. mais dañu jël un mois boo xam ne nii y aura un événement de lancement dirigé par monsieur le président de la mais ministre du commerce impliqué nañu ci. gestion programme bi et tout te dañ koy lancer pour promouvoir le consommer local. nous sommes, obligés ndax ñëpp tëj nañ seen frontière yi nous sommes obligés. ah mais tant mais on est obligé. Mm -hmm. ça et puis la pandémie doit nous apprendre beaucoup de choses. Mm -hmm. parce waruñoo fa buum yow ko ci baat jébal waa bitim réew. Mm. dañu war a produire lu doy réew mi ba war a dem di exporter mais li ñu exporter tuuti na lool par rapport ak li ñuy importer te ñun am na ñu am ay membres yu importer mais souvent dañuy wañ seen loxo ne leen il faut ngeen jàppale réew mi pour arrêter importation tel produit ba ñu écouler la production locale. li ma léegi ñoom bokkatuñ dara ak UNACOIS bële wala. wala di mën ngeen. ah dafa dafa am beneen UNACOIS <laughs> man UNACOIS yeesal laa fi waxal. waaw xamu woon ndax am na xamu woon ndax am na beneen UNACOIS. <laughs> Euh, Zuleyka bi. Hmm. bañ koy wax boobaak léegi. du du ci benn weer du ci ñaar. Hmm. temps boobu yëpp jàll. Hmm. Sénégal di ci wax ñuy participer ay séminaire et tout. ndax loolu yëpp utiliser wuñ ko pour waajal suñu bopp ba tey nii ñu dugg si këtt ni jon nga ne ñu pareegu. non damañ jot te damañ jot te preuve bi parce que gisuma preuve bu wane ne pare nañ. xam nga preuve bu nañ mooy. Euh, d'abord am na ñun daan impliqué ci ci ci préparatif yi mais melul ni war a mel benn atu rek la ñu am mooy madame le ministre nii nekkoon na directrice du commerce extérieur pendant très longtemps. Oui. donc am na ci expérience mais du moom kese da ko bokk ak yeneen réew te compétition lañ jëm compétition bu ñu fa jëmee nag yow ki nga faral muy sa champion da nga koy da nga koy danga koy jox xel. da nga ko ngemb da nga ko. ñun présider conseil waaw boo amee comprimé comprimé fortifiant. présider conseil des bi kon ban njëriñ la am mais il est au cœur. mais mooy au moins lu xew ñu ko wax mais yeex nañu ko wax te pandémie bi daf ci joué rôle boo xam ne nii depuis juillet ba léegi nii lépp dafa taxaw ba dañ bi bi ñu duggee décembre lañ ne. juillet lay lay tàmbali. mais siège bi Ghana lay nekk mais mi ngi door démarrer avec ses faiblesses et ses et ses atouts. on va voir il y des rectifications au fur et merci beaucoup Alla Dieng dinañ ñëwaat si moom si kanam ñu dem seetaan publicité. ñu dellusiwaat ci Alla Dieng mi nga xamante ne mooy directeur exécutif bu UNACOIS ñu ngi woon sànq si euh, si ZLECAf bi euh, bu ñu nee entrée en vigueur forcément effectivité bi dina jël diir wala muy am euh, tey UNACOIS lan lay xaar ci marché boobu nga xamante ne nii ubbi nañ ko au niveau africain. waaw marché boobu war na nekk ngëneel si ñun autant ci ñu mën a jëndi bitim réew ñëw di jaay autant que ku jële bitim réew bu ñëwee sax mën nañ ko jënd ñu jaayaat. parce que dañu am ay membres yoo xam ñu ngi ci marché yëpp ay distributeurs lañ alors mais dañ koy tuddee sauver leen ku ni hmm. parce que maîtriser wuñ ko te njort naa ne bari na pays yu ko maîtriser gul heureusement processus la c'est-à-dire du jékki-jékki rek tàmbali tàmbali doo commencé nekk jot vitesse de croisière il faut un temps donc ñun danañ analyser bu ñu demee ba am ay jafeñ-jafeñ danañ alerte kii de droit mooy maanaam ministre de tutelle wax ko ne ko ah am na xew loo xam ne day yaakaaroon na ne du xew mais lu mën di xew rek mooy compétition la produit sénégalais dina compétir ak yeneen produit jógee feneen ñëw fekk si ko fii. mais tey li ñuy importer te mu bëri loolu. Hmm. Euh, exporter euh, plutôt euh, bëriwul. li ñuy exporter néew li ñuy exporter néew. li ñuy importer bëri. est-ce que tey du nekk loo xamante ne nii bu ñu ubbee marché bi njëriñu peut-être multinationales yi lay gën a doon sax que Afrique jër ci boppam. xam nga bu ñu nee compétition moom ki am doole moom dana wone ki néew doole moom yàgg yàgg day day gën a wane ne néew na doole mais dafa am beneen aspect c'est le consommateur sénégalais aussi qui chef. qui est roi maanaam moom war na am toujours nekk devant l'embarras du choix ci produit bu nekk nag yoon da may mu tànn lu ko neex ak li dëppoog poosam wala mm-hmm. dëppoog portefeuille wala dëppoog ni ko waxee euh, euh, jigéen ñi dem marché seen panier panier de la ménagère alors mais li am importance mooy l'opérateur économique nu mu ci tirer l'épingle du jeu mooy mooy mën na jënd jaayaat parce que produit bu bu jógee bitim réew ki koy jaay en du ko jaay par détail da koy jaay quantité bu bëri mais yow mi jënd aussi da ngay jënd quantité bu bëri di jaayaat au détail hmm. wala ngay jaay demi donc soo ci su fekkee ne lii su ma ci defee lii mën naa ko jaay am ci lii mais opérateur économique il n'attend que ça parce que da ngay xëy di liggéey ngir am marge bénéficiaire jënd dara teg ci dara jaayaat loolu moom da ngay dem ba sax dootoo xàmmee li ñu defar fii ak lu jóge bitim réew sa marge loolu moom kon ñi ngi xaar ba xam lu muy a une partie de est-ce que tey euh, UNACOIS am na peut-être euh, partenariat wala lien yoo xam ne amagum na ko déjà au niveau euh, africain. waaw au niveau par rapport ak dëkk yi waaw au niveau africain bëriwuñu ay partenariat en tant que UNACOIS en tant que organisation bitim réew la gën a bëree partenaire partenaire mais suñu membres yi am na ñu yàgg tukki dans la sous-région. suñu membres yi man def dem naa fi Burkina Faso dem naa fi Mali dem naa fi Côte d'Ivoire am nañ fa ay Sénégal yu fa nekk am nañu fa nekkoon di ñëw même jigéen ñi sax am na ñoo xam ne ni mbas mi bi bi muy bi muy suñu membre mbas mi bi ñëwee fekk na leen Abidjan mhm. fa lañ toog daanaka ambassadeur mu leen jàppale bañ jël si waat donc suñu membres yi am nañu am relation am nañu ay membres yoo xam ne nii ils sont toujours dans la sous-région mais nag eggaguñu euh, Caire wala Alger wala Lagos wala peut-être euh, ni ñu koy waxee Afrique du Sud ah mais Euh, dans la sous-région donc zone UEMOA zone CEDEAO suñu membres yi ñu ngi fay dem régulièrement maintenant nag euh, xam nga Afrique 54 pays la bu nekkee bu bu bu marché bi bu ubbi 1 milliard 200 millions la. te yaa ngi wax sànq ne 34 pour le moment dëkk ñoo. non 34 ñoo ratifié. mais am na loo boo am na nombre boo xam ne suñ ko ratifié rek day daal di day daal di valable léegi nag ku ku téye sa bopp yow yaa xam a par rapport au intra-africain. Merci, merci beaucoup Alla Dieng, directeur exécutif euh, UNAS-Croix Yessal. On revient juste après la page publicitaire.